territoire la. xanaa dégg nga ubbi la kële laa la wax. yow yaa war a yem yow fi ñu la yemloo yow. Mm, li la naqar yëpp xam naa ko. li nga am problème bi yow benn mesure mënu laa jël.

ça va na nga def naka koor bi yaa ngi am jàmm bu baax toogaay nag amatul wax dëgg yàlla toogaay amul euh, fi ni dañu war a dem atelier asu fi ñu soo buggee dëgg-dëgg mooy atelier bi jooy na tissu yi jooy nañ ndax dërëm naweteekat yi euh, machine yi nangutul sakka sak ndax dërëm ndax dërëm dafa jooy ñu dërëm lay jooy mu ne yaa tag mu jooy ma ko lan la mu expliqué ma ne ko déedéet lii moom dañuy bàyyi ciseaux yi ñu teg leen ci suuf ñu ñëw moo tax ma ne ko adduna ñaari suy ànd faaw mu am tooñante dañ dem ñu waxtaan ak asu moom nag erreur la def parce que wax naa ko ni ngay jëli centimètre bi fese bi booy jël fese bi da ngay jël latéral gauche wala latéral droite comme Sadio Mané fi muy génn kon moom toujours da ñëw militaire rek la jël mesure bi bu jël fese fes bi wax naa ko bul dugg militaire nee na nag da bu ñëw di def loolu nga fekka ko foofu nga mer hmm, loolu moo tax lekkul naanu wanaa ah wanaa ko ah, dara te asu amul ku Hmm? léegi nag yow ni kuy doy tooñ booy tooñee góor day tooñ jigéen day tooñ antonyme antonyme tugal nga balo ko ak na nga deflu ba yaa ngi jàmm alhamdulilah lan moo nekkoon say tànk euh, caam baabal démbala caamlu borom mu nen lu waaslu moom lay seetlu yow sama sant jëkkër sama tagg jëkkër bi ngay yàq nag boo ko mënu wax doo noppi wax leneen nekku fi. dafa la génn lu. waaw wàccagul. ah naanaata yaa fay ko chef de quartier ñëwlu na fi. comprendre ma li nga wax de. bu ñëwee. Mm. ne ko chef de quartier ñëwlu na fi. incha allah na ko dégg. à tout à l'heure. à tout à ah. dafa am loo xam ne waru moom. war hmm. a joxe un exemple. waaw waaw un warul nekk ci atelier bi def naka sadul noonu. déedéet naka sadul noonu. ma kilifa la. waaw waaw. mere ko gaa. Mhm. waaye du ma seetaan mukk. Mhm. mu jóg naan ma baal maa ndeysaan <laughs> bu beneen yoonatee nag. Hmm. xam nu muy doxalee ak muy teg tànkam. ko defati de man centimètre bi léegi benn lay nekk maa ko yore. Hmm. ku fa ñëw client maa ko jëlal mesure. moom sama client maay jël mesure mesure bii léegi bàyyi ko sama loxo. man maay jël en charge ku ñëw foofu maay jël mesure man maay jël mesure doo too ko jëlee mesure waxal waaw. wii ay eh. waxal waaw. voilà <laughs> jaay ma <laughs> jërëjëf as <laughs> lii sax leçon la pour man. as su kontaan naa. as su gis nga yàlla defal na la loo xam ni. ak as asu dem nga aljana te deewagoo dama xam nii nga rafetee nii nga xool juróom rek nga dugg si moom rek yaa ngi yaa ngi dem aljana direct nga dem aljana yàlla na jàmm yàgg waay ay waay jàmm yàlla yàgg waay ah eh, reetaanal <laughs> reetaanal eh, yow <laughs> yàlla yàlla def jàmm si weer koor bi amiin yàlla def jàmm jàmm rek moo jar a ñaan xam nga jàmm fu mu nekk fa moo ko génn Beat.